ñu waaw loolu dëgg la jaamu ko pexe yàllaa ko dogalam mais Dame Sène incha allah dama koy daan nekk ko moom sax di taxaw moom di lambisoo di jëmale fu kenn xamul di tardé amateurs yi non non si c'est le travail qui paye. man li ma instant li ma liggéey laa gis dama ñëw jàpp ko daan ko jógee ko du ma fa nekk di lewtoo moom di guddeel amateur yi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 waaw ah, jiitu bi loolu tamit du dara loolu da am si làmb grand côté petit day am si làmb comprendre nga ay Bombardier moo jiitu Eumeu seen si làmb loolu du si dara gars yi dañuy mayante chance rek te bu subaa naa wax ni Dame Sène may ma ko chance war a bëre rek ñu war a bëre te dañuy bëre. Dame Sène ku mu mus a xeexal Dame musu xeexal kenn ka la xeexal. ay coroxo coroxo la lay def eh, ay faxastalu daan la dem yoonam la ah waaye fii mbër bu mënul koor amul yow mii sax tey su la am rende super tooño nga kor ko mbër bu mënul kor amul loolu du dara ñun yooyu noonu xëppal suñu moyen yan wax lay ca wax moom ay wax yoo xamante ni kenn laaju ko ko sax lay wax te yooyu jarul wax dama bëgg baay ba daan koo pare woowaat leen expliquer leen li mu doon wax mais bi du pour moment quoi instant bi waaw waaw Dame Sène du moom mooy yëngal. du xaw ma un zéro xaw ma trois zéro la mais du Dame Sène mii mooy daaj paquet bii paquet bii du paquet bu ñuy ñëw di daaji paquet bii day saf sàpp day saf sàpp day neex day saf sàpp man du ma paquet bu ñuy daaji de instant bi waaw non instant bi dama leen daa am fu ma teg sama bët incha allah dinaa seen dinaa daan daam seen dem ci kooku non lamb yëpp dër bi la lamb bu dul dër bi amul gars yi ñooy taafantaloo ay Pikine Parcelles dër bi la lamb yëpp dër bi la instant bi dama eh, daan daam seen am na koo xam ne moom laa soxla mu ngi si biir ikiri wa jël ko non mu ngi si biir non Papa Sow gaaw a bëriwaat parce que mu ngi jël as quoi daan jël franc damay daan daam seen jël franc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 moom mun na téye boppam sama kaw. no dana mu ñëw arbitre sifflé moom mu téye boppam ndax yow di nga dem. waaw léegi kii mun na téye boppam sama kaw kii mën maa koy diriger. du fu mu téye boppam. yaay diriger combat. maay dem maay ñëw maay man la yëkkati sama loxo. dégg ma wax kii du xeex du bëre du niil du daan du niil du daan moom ñëw rek xam présenté wu noonu rek dem xool fu nooy tëdd fa. li nga wax ni yomb de daam champion de.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 li mu daj ak li fa fekk du ko wax daam seen mukk da koy sóobal noonu loo fekk baax na mais sans li mu fa daj wala lu ma fekk du ko wax daam seen mukk moom xam na ah Papa Sow daanu ma di par décision la. ah mais victoire victoire la nag. ah victoire victoire la dama koy ñaanal su amee benn combat yàlla mooy ko ndam rek. Ah, noo ah, ko amee na.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 bu arbitre sifflé yaay xeex moom bu arbitre sifflé yaay bëri moom yaay dériser ci combat bi nga wax. teg si yaay daan teg loolu nag man du ma ko wax waxal ak man yow la yaay eggali eggali ko. ah eggali ko yow. déedéet eggali ko Baye Balla. Baye naa la wax moo tali loolu. ci nee na moom mooy daan. non fu mu doon nii gars yi fu ma dem man ay xale rek lay entraîner géej nii ay xale rek lay entraîner man ma yàgg bëre dama yàgg bëre xam na ci làmb ak li làmb di laaj ma di ko jox ay lool noonu sen ne me dérange pas ay kii xale la wala kii mag la non bis bu nekk ga la muy laaj bisu daam seen li mu laaj incha allah bu bis ba dinaa ñëw rek wan wane ko mais du ma ne daam seen xale la damay taxaw moom moo soxla wala moom moo kii ni mu soxlaa victoire man nu ko raw laa soxlaa victoire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 dajale woo dëgg euh, que loolu tamit parce que Cobra waroon na ñëw mais dafa xaw feebar waaw yaram bi mooy xaw métti noonu rek mais Cobra sama raxala man maa ko indi si écurie bi Cobra fii këram la fii la amee lépp man loolu laay wax man sama teraanga yëpp fii ko amee kon fii nii du suñu écurie suñu kër la xaar ñu fi Samba xaar ñu fi Demba ku ñëw dañ fi fekk ku dem dañu fiy bàyyi Cobra suñu rakk la su wéree dina ñëw nekk si lim nekkoon di ko ñaanal yàlla mu wér yàlla may ko ndam ni ci kanamam comprendre nga loolu lañ koy ñaanal di ñaanal képp ku nekk équipe Pikine mbooloo wala képp ku nekk équipe Pikine soo bëri yàlla may la ndam mais fii ñëpp benn la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi fii bu subaa doo am foo sànni sa foo teg sa tànk doo ko am lundi nag gars yi dañuy dem géej géej sax laa bëggoon ñu dem mais géej booy ñoo dul may nga def li nga bëgg a def loolu moo tax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 Ibi Diagne sama grand frère ñuy ñaan yàlla ñëpp ñi nga xamante ñoo ngi si doon jàpp ay ñoom mu daam ñoom bay Seck ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi si doon jàpp rek combat bi ñu gën say jàpp mobiliser jënd bi yi comprendre nga euh, luy ay kaar yu doy ñu teel a dem yàlla may ñu ndam si kaw daam seen ñu daan ko jël ba set wécc boo xam ne du ñu si am sax coono ñibbi si waat loolu la ñuy ñaan yàlla di lancer benn message na daam seen bàyyil bàyyil TikTok bi ngay wër di wax wax ji daa doy bal lamb ji jege si na ba pare li nga waxee lépp lépp lépp maa koy dégg te li nga waxee rek bu jour ba na nga ko jëfee loolu la laa leen ñaanal yàlla waaw. lan nga wax yi. waaw maa leen ñaan euh, ñu mobiliser wu teel a dem stade rek añ añi moom incha allah dina teel a pare. non à la violence. la violence di wax Fallou Ndiaye moom kenn amul sa fay yàlla mi am sa fay yàlla na yàlla fay parce que Fallou Ndiaye mooy seul promoteur boo xamante ni lay tëggal làmb. di la sonal di la déranger di la woo woowee dinaan nii ngay taxawee nii ngay defee non non non